gannaaw coow lu rëy li doxoon ci digganteem ak Dieyna bu Sen Petit Gallé Mamadou Diop ISEG yoon placé na ko garde à vue ginnaaw ba nu ko interrogé ba pare. li wér te wóor nag mooy patron ISEG bi daanu ko defeere ci heure yi nu jëm ndax moom kat lañ koy toppee moo di détournement de mineur teg ci ab grossesse maanaam daal di koy ëmbal. Dieyna balde moom bi di victime bi Ali Baldé magam Abibatou Sy di ab cousinam ak Ibou Ndaw ñoom ñëpp enquêteurs yi convoqué nañ question ginnaaw accusation yu bëri yi nga xamante ni Dieyna balde yëkkati na ko teg ko ci kaw Diop ISEG xut benn yoon ba baayu Abiba ji nangu benn yoon li nga xamante ni moom la ko Dieyna bu seen Petit Gallé di tuumal moom la mu xamle ca kanamu enquêteurs yi moo di mësul tëdd ak Dieyna balde même bu ñu xamee sax ni ki nga xamante ni moo di Diop ISEG moo hébergé Dieyna balde ba pare teg si doon ko jox xaalis ginnaaw bi nga xamante ni ëmb na waaye mel na ni yile enquêteurs yi ñoom sax remonté nañ conversation téléphonique yi nga xamante ni doxoon na ci diggante Diop ak na Baldé mbir mi nag li ci gën a doy waar moo di enquêteurs yi dañoo fexe ba sulli ab vidéo boo xamante ni dañ ko publier woon ci réseaux sociaux yi ñu ci ki nga xamante ni moo di Diop Iseg daal di woddoo ab serviette bu weex jàpp ci loxob Dieyna Baldé vidéo boobu sax ki ko filmé moo di Ali di mag ci Dieyna balde ci vidéo boobu tamit ñu ngi ci dégg ki nga xamante ni moo di Ali di magu Dieyna balde bi di ci yàq lu mel ni xeme kii di pour yow alal mooy aduna jël doomu jaamur di ko di ko toroxal Diop waaye nag kii di Dieyna balde bi mu taxawee ci kanamu enquêteurs yi biñ ko laajee vidéo bi daf ni vidéo boobu ñu ngi ko tourné ci 31 décembre bi nu génn ci benn auberge bu nekk ca Kara mu wuute lool ak li nit ñi di xalaat Diop mu ngi nekkoon ak Abibatou Sy di cousine ci ki nga xamante ni moo di Dieyna balde waaye mu mel ni loolee ab complot la woon ndax bi nga xamante ni Diop Iseg dem na ba summeeku boo war a seq ki nga xamante ni moo di Abibatou si ci la Dieyna ak magam bi daal di agsi si ci auberge bi Dieyna Baldé nag li mu expliqué enquêteurs yi mooy li tax ñu filmer Diop mooy wan askanu Sénégal day abuser xale yu jigéen yu ndaw yi maanaam les jeunes fii